jërë ngeen jëf ñu ànd demandoo ci li gën a fës ci ëttu yëglekaay journal bi di yoor yoor lañ koy dooree mu fësal ca xëta mu njëkk ndogal bi nga xam ni conseil constitutionnel jël na ko ñëwal report élection présidentielle yu atum 2024 journal banque du pays le conseil constitutionnel anéantit les derniers espoirs de Macky Benno Wallu di xam ne ni ginnaaw bu moom président Sall taxawee ni reporté na élection présidentielle yi ñu dëgmaloon waran koo amal le 25 février 2024 ñoom ñi di waa conseil constitutionnel nag xamal boobu moom am delloo ko fa nga ko jële woon ndax mënul nekk benn yoon ndax report élection présidentielle yu atum kenn xalaatu ko fii ci Sénégal dañuy respecté dañu duppee le calendrier républicain bu ko defee askan Sénégal mën a tabbal seen bopp seen président de la république mbir mu ne mel la vox populi fësal ca xëttamu njëkk di xam ne les sept charges du conseil constitutionnel nag jël nañ seeni responsabilité ba ma sëkk di xamal moom président Sall ko ci yoon nag ndax loi bu Sénégal mayewu ko bu Sénégal mayewu ko dañuy respecté lu ñu duppee le calendrier républicain askan Sénégal boteel seen bopp tabal seen bopp seen njiitu réew Aliou Sall di rakki président de la république yëkkati kàddoom te journal ba ma nga naan alhamdulilah conseil constitutionnel jël na décision bi gën ci Sénégal yi gën na décision bi dëggu ci yoon également Sud du Quotidien moom tamit wàllum conseil constitutionnel la pësal ca xëtam mu njëkk ma ngi ko duppee naan les sept charges APR bëggoon koo yóbbale 15 décembre bi ñu dëgmal ñoom ñi nga xam ne ñoo yelloo yëkkat seen kàddu jëmale ci mbir mi di waa conseil constitutionnel ñi ngay xam ne que ni nag loolu moom mënul nekk benn yoon ba tax na lu mu métti métti dañu amal élection fii ci Sénégal balaa mandat moom président Macky Sall di jeex gi le avril bi ñu dëgmal Ndonga Sarr yëkkati kàddoom ci journal ba di ab enseignant chercheur ma ngay xam ne ni conseil constitutionnel nag li mu du le droit lire le droit à sa juste valeur maanaam wax àq ak yelleefu droit na Macky Sall kon ginnaaw ñaari mandat ci bopp réew bu Sénégal dafa fas yéene daal dem bàyyi kaneen mu jiite ndax nag élection yi nga xam ni moom la ñu dëgmal dañ ko fas yéene amal ci lu yàggul dara ginnaaw décision bi nga xam ni conseil constitutionnel jël na ko jagleel ko askanu Sénégal le quotidien le quotidien ma nga naan ñu décision bii nag ki ci gën a ñàkk du kenn ku Karim Wade nekk jamono ji fële ca diwaanu Qatar ginnaaw coow bari li nga xam ne nekk a wax bañ reporté élection présidentielle mayu ko tey ji mu bokk ci élection yi nag wante leneen lu dul loolu élection yi kenn du ko reporté mu nekk ñaari defet yu méttee métti yu nga xam ne moom doomu Abdoulaye Wade bi jël na ko ba tax na ni ko jamono ji wàllum politique fii ci Sénégal commencé naax saay bu baax a baax commencé suuxe bu baax a baax également journal bi di l'enquête ma nga naan ñu ginnaaw nag bu conseil constitutionnel dàqee bëgg-bëgg moom président Macky Sall bëggoon a jagleel askanu Sénégal bu ko defee buñ ca àgg ñu mën a dem voté tabb seen njiitu réew askan wi mën a jàll ci leneen situation politique bi mën a apaisé wu jafe-jafe yi xeex bu metti mën daal di jeex saa si tembe mu nekk nag taxawaay bu nga xam ni ñoom ñi di waa conseil constitutionnel dañ ca am rigueur bu mat sëkk maanaam fullaak fayda amuñu ca benn xaar ma yàlla jël décision bu leer naan ñi ca wétte wóor jagleel ko askanu Sénégal ñu mën a def ci élection respecté la constitution respecté également le calendrier républicain le témoin di ñu xamal ni conseil constitutionnel kay yëmul foofu kase ndax nag ginnaaw bu mu dàqee bëgg-bëgg président Macky Sall daf koo daal di digal ci lu leer naññ nag mu jël date bu bees tàq jagleel ko askanu Sénégal ñu organiser ci élection présidentielle yu atum 2024 mu nekk nag délai bu nga xam ni laata mandaam di jeex di le 2 avril la ñu war a amal élection yi ñu dëgmal bu ko defee ñu mën a xam kan mooy nekk le cinquième président de la république du Sénégal bu ñu àggee ci avril boobu nga xam ni mooy nekk délai président Macky Sall mu def ñaari mandat yu kenn bopp réew bu Sénégal Walf Quotidien ca mbir mu ni mel la addu jëmale moom tamit ma ngay xamle que élection présidentielle yu atum du am le décembre ba ko moom président Macky Sall bëggoon a amal maanaam yokk buuñaa bu 10 loolu moom conseil ba dàq na ko ma ngay xamle ni nag laata le 2 avril bi ñu dëgmal lañ war a amal élection présidentielle yu atum 2024 ko defee bu ñu àggee le 2 avril moom président Macky Sall def lu ñu duppee passation ko kaneen ñu jàll ci leneen kaneen ñëw doxal jéem a liggéey ba xam askan Sénégal ubbi seen i gët xool ko ba xam nan lay doxee bu ko defee nag mu nekk une démocratie bien respectée la constitution bien respectée également fii ci diwaanu Sénégal l'observateur ma nga naan ñu moom tamit Badio Camara ak ñu ñam di les sept juges du conseil constitutionnel dandaa di bañal président Macky Sall lii mu bëggoon nag bëgg a yokk mandaam ba kenn xamul fu mu jëm maanaam diw mois di fukki weer yu may ko waral nag ñoom ñi di waa conseil constitutionnel dàq lu ne mel xamal lu mu métti métti dañ amal élection présidentielle atum daar daar maanaam na mu gën a gaawee askan dem tabal seen bopp seen njiitu réew révélation nag ma ngay samp ab laaj ci ma nga naan que va faire actuellement maanaam moom président Macky Sall ara lay defandi jamono ju toll journal ba di xam le est-ce que nag du tas conseil constitutionnel ginnaaw décision bi nga xam ne tollandi ana nan la cay taxawee lan la cay defandi est-ce que moom président Macky Sall day bàyyi mu jàll wala day daal nag dikkaat indiwaat dooleem def ba ne mbir bu nga jërë ngeen jëf ñu àndi demandoo ci li gën a ci ëttu yëglekaay journal bi di yoor yoor lañ koy dooree mu fësal ca xëttam mu njëkk kuréel gu bees tàq gu ñu samp nag mu fës yéene jàmmaarloo ak moom it président Macky Sall ginnaaw report élection présidentielle yu atum 2024 ko duppee front

candidature journal ba ma ngay sàkku ci moom mi président Sall mu amal li duppee benn concertation maanaam ñu toog waxtaan bañ a dialogué ñu toog diisoo réew mi trouver benn consensus kenn ku nekk mën gis jàmm moo gën ñu toog di dialogué kenn ku nekk naan lu ma cay am ak lu ma cay bénéfice laas moom ma nga fësal ca xëtam mu njëkk ñaar ñi nga xam ni daanaka politique bu Sénégal rek jamono ji mën nañu wax ni ñoo ko jiitee du président seen nekkin jamono ji daanaka ñaar ñu taxaw yor jaasi leen jàmmaarloo bëgg indi jàmm ci réew mi mu mel ni président Macky Sall dinaan koy njamalakaay wuy sa yaay Ousmane Sonko naan ko sama yaay du ma woowee paaka ba tax na journal ba di xam le ni seen diggante ñoom ñaar nag ngir mu am jàmm dina jafe bu baax a baax naam nekku nag lu nga xam ne lu mënul nekk la daanaka buñ waxtaanee mën nañoo trouver consensus wante nag faaw mu am tànkuy dëgër waxtaanu wérte wóor te ànd ak bépp sérénité bu ko defee ñoom ñaar ñi président Macky Sall ak Ousmane Sonko mën a toog ci waxtaan trouver jàmm Sénégal mën a avancer bu baax a baax l'enquête ma nga naan ñu jamono ji kay moom président Macky Sall jàmm rek la bëgg ci di ko wër di wut nag ku ko ko wër le ba tax na ca conseil des ministres ba nga xam ni ña ngi ko doon amal ma ngay sàkku ci ay ministre seen kéemtalaay kàttan ngir pacifier l'espace politique maanaam jàmm ak ba tax na également moom président ma ngay sàkku nga xam ni ñoom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllum njàng bi ñu def lépp loo xam ne mën nañ ko ngir étudiants yi delluwaat ci école yi ak université yi dooraat seenum njàng mu nekk rek taxawaay bu am solo bu nga xam ne journal baa ngi koy magnifier moom président Sall amal ko jamono ji jëmale ci situation politique bu Sénégal di xam ne ni jamono ji la mu woote mooy jàmm ak salaam def lépp loo xam ni mën na ko ngir dëkk bi ànd ak dal gu mat sëkk source a tamit mbiri président Macky Sall la pësal ca xëtamu njëkk ma ngay xam le ni nag moom président de la république day woote dialogue ba pare du ko doxe du ko jëfee ndax nag li koy firndee du lenn du dul conseil des ministres bi nga xam ne ña ngi ko doon jagleel na ko famille des victimes wala mu yëkkati benn kàddu jëmale ci amnistie bi nga xam ni ñi ngi koy waxtaane nag guddeeg bëccëg fii ci Sénégal bëgg koo jagleel ñu ñu duppee les ngir ñu génn ci kaso dellu ci seen i njaboot wante nag conseil des ministres ba nga xam ne moom président Sall doon na ko amal ak i ministre benn kàddu boo xam ne yëkkati na ko jëmale ci mbir mu ni mel ba tax na journal ba di xam ni day woote dialogue wante a baax ci seen biir dañ caa déggowul bu baax a baax moom président Sall yëkkati ay kàddu ca journal ba ma nga naan ay ñoñam yu ñu bokkal APRD jàpp waa Pastef di tëj nag nekkul moo ñuy gàñeloo réew mi dañoo war a génn ci dëkk bi investir li nga xam ne moo di collectivité yi bu ko defee ñu mën a am représentativité bu am solo jëm ci wàllum élection yi ñu dëgmal Sidiki Kaba di saaku ci moom it président de la République mu pacifier l' espace politique maanaam indiwaat ko defee dëkk bi mën a am am peex mu wér ca wóor moom mi xam ne moo di Mansour Faye nag dafa lànk kandaar àndul ci amnistie bi ma ngay dem sax bay menacé di xam ne nu fekkee dañ koo amal fii ci Sénégal day démissionné mu nekk loo xam ne du samay kàddu de journal baa ko wax bu dee kii di Mame Mbaye Niang ak Abdoulaye Daouda Diallo la ñuy sàkku ci président de la République nekk du lenn du dul mu libérer les détenus politiques balaa moo gën a ñaaw balaa procès président de la République di ko amal mu nekk taxawaay bu nga xam ni dafa jaxase bu baax a baax nag parti bi di APR jamono ji wala coalition bii di APR ginnaaw amnistie bi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati jëmale ko ci détenus politiques yi nga xam ni ab diir boobaak léegi ñu ngi ci kaso bi le témoin ya ma nga duppee xëtam mu njëkk la guérilla constitutionnelle fait rage di xam ne ni ginnaaw report élection présidentielle yu atum 2024 li ko dalee ci ay juriste ay juge ay imposteur ba ci ay professeur d'université kenn ku nekk nga ca mbiicoob ak mbaaloo ba nag di jéem a wengal di jéem a jubal kenn ku nekk ak fa nga far ñi bëgg koo jubal ñi bëgg koo wengal kii naan report bi yenu na maanaa kii naan yenuwul maanaa mu nekk na xeex bu méttee métti werante guddeeg bëccëg bu nga xam ni mi ngi am ci ñoom ñi nga xam ne seen xam-xam dafa ci jëm ci wàllum justice ginnaaw bi nga xamee ni moom président Macky Sall jël na décision nag reporter élection présidentielle yu atum 2024 le quotidien le quotidien ma nga naan ñu Macky Sall nag daal nay deltu ginnaaw bu baax a baax ci décision bi nga xam ne jëloon na ko bëgg reporter élection yi jamono ji nag projet de loi ba la lem ba mu jekk mu delloo ko ndànk ci poosam met El Hadj Diouf yëkkat ay kàddu ci journal ba ma ngi ko duppee les traîtres du projet di xam ne dafa am ñu ànd ak moom mi président Sall wante ànd ñu benn yoon ci mu reporter élection yi wara nag jafe-jafe yi commencé di judd ca biir Benno Bokk Yaakaar ginnaaw décision bi nga xam ni moom président Sall jël na ko Walf Quotidien moom tamit ma nga naan ñu ci dëgg-dëgg nag moom it président Macky Sall ak ñoñam dañuy fowee Sénégalais yi dañuy fowee également justice bu Sénégal ndax ginnaw bu ñu génnee benn commission d'enquête parlementaire yóbbu ko fële ci assemblée nationale ngir ñu dàq élection présidentielle yu atum 2024 semaine rek lañ ca tekk maanaam juróom-ñaari fan moom mi di procureur de la république daal di nag benn information judiciaire loolu daal di ndar képp bu baax a baax nag liggéey ba nga xam ne assemblée nationale doon na ko amal loolu tamit daal di juru ginnaaw jàmmaarloo yi métti assemblée nationale ñu daal di guillotine ñoom ñi bokk Yewwi Askan génn leen biir assemblée ba waa Benno Bokk Yaakaar voté projet de loi ba loolu lépp ñu amaloon nag daan nay France daal lu xaddeen ginnaaw ba nga xamee ni moom procureur de la république ubbi na benn information judiciaire ci coow li ñuy déggandi ñëwal report élection présidentielle yu atum 2024 la turbine ma naan ñu coow li coow li daal diglu nag du ñenn ñu dul waa conseil constitutionnel ndax nag jamono ji ginnaaw recours yi nga xam ne dugal nañ ko opposition bi amal lu ni mel opposition bi amal lu ni mel ñoom nag la askanu Sénégal jox nopp di leen déglu ginnaaw décision bi nga xam ne moom président Sall jël na ko bëgg reporter élection yi ci méngawul benn yoon ak constitution bu Sénégal l'observateur ma nga pësal ca xëtamu njëkk waaju nga xam ni ay at yu baree bari boobaak léegi gëj na ci dëkk bii di Sénégal di Karim Meïssa Wade di nekk fële ca diwaanu Qatar waral ba journal ba duppeekoo Karim comme un résurrecteur maanaam daanaka malaaka la ko méngaleel ndax nag le journal ba xamle mooy Karim Deme nga toog fële ci diwaanu Qatar di manipuler politique bu Sénégal ndax report élection présidentielle yu atum 2024 daanaka turam lañ ca gën di dégg jamono ji ñu toll ba tax tamit journal ba di ca yokku di xamle ni lii muy defandi nii nag day merloo ñu bëree bëri ci askanu Sénégal maanaam nekkoo ci dëkk bi sa dara nekkul ci dëkk bi ngay lëmbe dëkk bi moom daanaka askan wi duñ ko nangu benn yoon si du quotidien moom politique ba la àddu jëmale di xam ne ni jamono ji nag mbir mi jaxasoo na bu baax a baax waral économie bu Sénégal def daal di ralentir maanaam deltu ginnaaw bu baax a baax ci fan yi nga xam ni ay manifestation nemmeeku nañ ko fii ci Sénégal réew mi di xam ne ni Moussa Bocar Thiam de moo ca gën a lor askanu Sénégal nag di ministre bi nga xam ni moo jàppee internetu Sénégal comme làmp ba nekk cam néegam bu ko neexee taal bu ko neexee fay xuy kamaj la dëkkee waral nag moom mi di Moussa Bocar Thiam ci fan yi nga xam ne dagg na ko internet bi daanee xañ ñoom ñi di les milliards de francs CFA yoo xam ne ay perte la ginnaaw jëf ji nga xam ne def na ko ci dëppawul dara ak yoon daanaka ba tax na critique yëkkati kàddoom nag di xam le ni ay kudul xalaat ginnaaw président Macky Sall lu la neex defal ba tax na ñoom ñi ànd ak moom Sall ngaar yi ña ngay def lu leen neex jamono ji ñu toll wante critique ma ngay xam le ni nag ginnaaw bu fi jógee de mbir mi dina neex a neex ba jaaxal kenn ku nekk ci Sénégal ndax nag rapport yu bari yi nga xam ne yëkkati nañ ko les mille milliards du Covid 19 scandale financier yu dul jeex ba tax na may laaj nag benn Sénégalais bu nekk ginnaaw nguur moom président Macky Sall nan ngeen gisee justice bu Sénégal mu war koo taxawee ngir nag lii nga xam ne moo amandi te askan wi ñu bëree bëri di ci laaj ñu leeral ko ba mu leer naan ñi ndax justice ba nga xam ne mooy ñëwandi ginnaaw 2024 war naa mën a am dayo ba war ngir leeral lépp benn par benn point par point fu Caravage laaj rek ñu def ko fa ak nam ko waree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 salaamaaleykum mbokki internet yi dalee nag jàmm ci seen chaîne tv préférée ñu daal di ñëwaat ak yéen ci li gën a fës ci bopp xibaar yi bokk na ci nangu bi nga xam ne le président Macky Sall def na ko ci décision waa conseil constitutionnel date bi nga xam ne ñoom candidat yi wax nañoo daje ngir daal di koy mën a choisir ak sortie médiatique bi nga xam ne kii di Khalifa Sall daal dina koy amal gannaaw waa conseil constitutionnel décidé annuler report élection présidentielle ñu tàmbalee li gën a fës ci bopp xibaar yi ak waa journal l' évidence moom nag daal dinay fësal ci xëtam bu njëkk tax le président Macky Sall bëgg a libéré kii di Ousmane Sonko ci na mu gën a am na sax ñu naan la semaine prochaine incha allah leader ex parti Pastef bi dinañu ko bàyyi mu ñibbi këram ce n'est plus qu'une question de di ñëwaat ca boobu li libération ndax nee na kii di Ousmane Sonko ak Diomaye Faye bu fekkee bàyyi nañu leen ñu daal di ñibbi kon sénégalais yi nañu xaar benn redoutable campagne Sonko Diomaye ndax comme ni ñu ko doon waxee ay jamono ci ginnaaw njiitu réew mi projet de loi d'amnistie bi nga xam ne moo ngi ko doon bëgg taxawal lam ci bëggoon permettre kii di Ousmane Sonko mooy mu daal di duggaat ci course présidentielle bi mais malheureusement loolee antuwul kon ñoom waa ex parti Pastef di Diomaye Faye la ñuy journal de Dakar waa ne njiitu réew mi daal dina nangu décision waa conseil constitutionnel sans problème sans pipiement il s'engage à respecter l'état de droit Sud Quotidien ne jamono yuñ njiitu réew mi ca loolu lay dox ba tax na ay fan yi di ñëw incha allah daal dinañuy annoncé ab daje foofee ca palais la république ngir daal di waxtaanee tenue élection yi Les report élection présidentielle yi ab réunion restreinte daal dinañu koy amal ak collaborateurs yi ba xaaju guddi ga alors que opposition bi nangu dem ci dialogue bi au par le 2 avril incha allah kii di le président Macky dina jébbale pouvoir bi journal direct news mel ni ku koy tontu nee nag concertation yi dafa nekk la nga xam ne lu war a am la ngir ñu daal di mën a ab consensus sampaale ab laaj nag jëmale ko ci juge bi di Cheikh daal dinañu koy proposé nekk le 3 wala le 10 mars ngir ñu daal di ciy amal élection présidentielle yi pour rappel ca biir date bi nag wax nañu tey sóoraale ñaar fukki fan ak benn yi nga xam ne candidat yi jàll pour élection présidentielle yi dinañu ko soxla ngir daal di mën a baatax campagne te candidat bu nekk à 15 jours du scrutin le président Macky Sall wax na laa jébbal ab fichier électoral le quotidien yéene kaay ne xel mën naa dal ne élection dina am dans les ak différents yi jamono yuñ nga xam ne jaaxal na candidat yi nag moo nekk date bi nga xam ne ci la ñu a mën a amal élection présidentielle yi moo ngi mel ni sénégalais yi dañoo toog ci xottu neen ñoom ñëpp i dara dina am journal Walf Quotidien ni kii di Khalifa Sall nag ca sortie bi nga xam ne amal na ko démb dafa mel ni ci doon waaj jël revanche ci kii di Ousmane Sonko Les Échos ne opposant bi nag nee bu fekkee ne njiitu réew mi daf ko woo ci dialogue dina dem wuyu ji ko amul kenn ka nga xam ne mën nga koo aaye mu daal di samp ab laaj nag jëmale ko ca libération massive yi nga nii ñëpp trop intrigué la mu bëgg mooy ñu daal di koy expliquer ana lan la ñuy ruumanaat lan la ñuy nëbb ci suuf journal l'observateur ne dafa mel ni dafa am yenn ci ay candidats yi nga xam ne dañu fay jaarale muuma ci datu élection présidentielle yi ndax ils sont partagés entre le avril ak weeru koor gi journal libération daal ñëw ci réaction internationale bi tàmbali ko ak waa union européenne nga xam ne ñoom daal nañuy sàkku ci autorités yi ñu mettre lépp a sénégalais yëpp ñu respecter décision conseil constitutionnel bi ambassade États-Unis bi nekk fii ci réewum Sénégal nag nee ñoom la yaakaar mooy citoyen sénégalais yi dinañu am occasion dem bientôt ci urne yi waa ONU ak CEDEAO ñoom daal dinañuy